bokki jullit yi gannaaw ba nu sante yàlla jullit ci yonentam ba seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñëpp di baalu xaq ñëpp yàlla na nu yàlla boole jéggal suñu diggante ak moom te dox ci suñuy diggante ak suñuy moroomi jaam te nangu nu suñuy koor dellu it di ndokkeel jullit yëpp di dénk suñu bopp di leen dénk ñun ñépp ñu maase àndandoo yoon wi ñuy wax taqwa mooy tënku ci ndigali suñu boroom te bàyyi ay tereem ba faw moo xam muy lu ñuy feeñal suñu digganteeg suñuy moroomi jaam walla moom yàlla mu xam nu xam moo xam santaane suñu boroom nga day jëm ci loo xam ne faw nit ñi xam ko waaye buñ cay dem nañ ca dem te yàlla rek tax jëfe ndigalul suñu boroom nag amut bu fekkee jot na ca ka war a jëf ka jot na ca ndigal la amut it barab boo xam ne bu ko fa defewut rek du dem du demee nam war a deme la ca gën a am maanaa rek mooy bu jotee ndigal li rek fu mu ko fekk mu dal di cay nekk la jàppandalal loolu nag moo ñu tënkoon ci diirub weer bu yées tuuti yal na yàlla nangu lépp weer woowu nag bu doon gan gam doonoon day mel na takk na sam ba tàggu na ñi mën a tàggu ñépp ci koñ bi ak dëkk bi ba li ko fii jële daanaka taxaw na yàlla na nu dëddoo jàmm te yóbbaaleel nu ngërëmul suñu borom subhanahu wa taala weer nag wow bu demee ni weeru koor ndigal tënkoon ci jullit yi bu demee ba toll fii mu toll ñun ñëpp nañu xam ne fanweeri fan yu manqué sëkk wéy na ci suñu dund du ñëwaat lu ca way defutoon moom weneen weer rek lañ ca def mu néew mu bari yàlla na ko yàlla man kon li mat a def bokk na ca gannaaw wëlbati nañ woowa kayit ñu xam ne laaj na am njàngat kenn ku ne ci nun xam na lim nekke woon ci koor gi moo ko gën a xam ku moom ci jaam yàlla yi lu mu ca ba cay nekk ba ñu toon kenn fekk ko ca lu baax nga noonu ko wéyal lu mu ca def ko wala mu rëccoon ko te ba mu koy def bëggutoon kenn fekk ko fa it mu tuub ko te xam ne ni yàlla moome koor wi digle woon ca lam ca digle ni la moome yeneen weer yi nga xam ne mooy ñëw ci kanam yàlla nañ ci fekkee lu yàgg kon daal ci tënk jullit dëgg-dëgg mooy koo xam ne baatub taqwallah ndarga mu ñuy xool ci jëmam di ko ca gis buy waaj di ko waaje suy walli di ko wallee waaye jullit dëgg-dëgg bokk yi du fab weeru koor rek def ko weeru jaamu yàlla su jàllee mu dellu ca lam nekkoon waaye nim tënkoo woon tënk boppam te yàlla dongu doon seedeem eh, na ko wóor ne yàlla mi ne mi fi nekkaloon ci weeru koor wi moo fi nekk bu ñu waree kon jàmbaar yi dëgg moom bu weeru koor masaan ñëw daana leen dolli i jéego waaye bu weeru koor jàlle du tax ñu bàyyi jéego yi ñu doon dox yañ doon dox ci koor kay la ñuy jël dolli ko yañ doon dox fas yéene ñaanal yàlla fekke ko déwén waaye dara du ca wàññi waaye nag ak tumuranke ngi nii koo xam ne jamonoon koy jooy diina di ko jooy nit ñoo xam ne dëgg-dëgg ñii góorgóorlu nag waaye seen jaamu yàlla ñàkk xam da ko lal ba bu weeru koor ñëwee ñuy kër këri waaye bu weeru koor jeexee ñu tegaat fi suuf di xaaraat yeneen jamono nañ xam ne la wax na ci alxuraan ne ku xas ba fasanteeg kam yi fasanteel kóllëre buy tekki ku bu mu jaaree ci moom mukk rawatina nag kóllëre gu ab jullit fasanteeg suñu borom ne ko loo def neex na ma te loo digal danaa ko def koku su joxoñee wéru koor yit santane bu jàllee li feeg waxaatut leneen it ndigal loola may wey yàlla na nu ko yàlla déggloo wax na ci alxuraan it ne fii ci kaw suuf mën na fee tàmbalee kum soob mën ngaa fexe ba jiitu ci say morom waaye kum ba mujj gannaaw yàlla na yàlla mësal ci mujj gannaaw ne bu ëllëgee nag kenn ku ci nekk boo rawee ci say moroom des na ko xam boo desee gannaaw des na ko xam yàlla nañu yàlla mosal ci des gannaaw ñi nga xam ne lépp lu ne la woon nañ ko ci biir koor gi di sa kër kër yi rikk bu weeru koor jàllee buñ ko jàll buñ ko bàyyi ñi nga xam ne it fonkoon nañ lool bu waxtu julli jotee ñu dem ci jàkka ji it nañ xam ne jàkka ji fi la ko koor gi fekk ko bàyyi ka fa doon woote moo fay woote ba tey lam fa doon woote it moom la fay woote ba tey yëmut ci koor gi rek am na nag lu yéeme loo xam ne it jumaa am na ci wàll bokk yi ñi nga xam ne dañoo tàmmoon fuñ nekk seen na leen fa bàyyi ñu ci bare bari bi koor gi ñëwee amatuñu fi ñu ko defe ji moo leen tënk tënk boobee yàlla bu mu leen bàyyi tënk ba du dara kat lu soo wootee it nit ñi tëluñoo dem ñoom di wuy ji lu ni mel ci koor gi waaye am na lu xorom lu ñuy organiser ci koor gi léeg lekk am na yaari at bu ma juumul tudde ko festival silaam silaam juumuma ci festival mooy koo xam ne tàmmoon na euh, dajale mbooloo ñu ne yee da leen ci bëggal bokk yi bëgg ak nelaw ba yandoor jotagut nelaw ba yandoor ku dugg ci ba mel sayyiduna Adama alayhi salaam la ko ci tàmbalee ci moom ba fii mu nekk ña ña ña jóge ña nelaw waaye bég ak bégalaate kañ lay am bis bu yàlla séddalee ku nangoo sa ndejoor dànkal dànkali ci aljana su boobaa da nga bég say soppe bég yama ko yow yoon woon jaar waye tan weeru ko di ci bëggal ju far mu jur jangor safar mu jur bokk yi dañu wax ne dañuy tan ci kër yi tuddo diina ci Sénégal yépp fenn fa nek ñu tan fa ay nit ñu ñëw wane seen man-man festival silam lu wër la dégg nañ fa jigéen ñu yëkkati ay xasida xasida suñ tubaay dégg nañ fa it góor ñu yëkkati xasida suñ tubaay di ko booleeg ay ndënd sëñ bi jigéen ñu yëkkati bu daganoon soxna fajja di ko yëkkati ndax soxna fajja bari na ci xasida yoo xam ne moo leen mag soxna faj soxna astu gaawaan di ko yëkkati bari na ci xasida yoo xam ne moo leen mag fi lañ ko fekk soxna may ñu bokk sëñ abdou jiko ko waye su doon daganit njabotuk sëriñ touba nga nekkoon ak moom ci biir këram nga ca njaaree nit su góor ñu géewee fay di yëkkati ñu ñu yëkkati fee ñoom itam kon ñooña teewu luñ fa woon yoona murit war toogalam bokk yi jàng alquran ci ak julli lenn lu ñuy wax melu ni te digaluñ jigéen mu yëkkati alxuraan ci kaw nodd dara ëpp ko ab yool te ndax dañ ko bëgg a xañ yool bi muy am ci nodd wala bi muy jàng ca kaw déedéet diine bokkut ak aar bokkut ak culture bokkut ak nii laa ko gise walla nii la ma neexe déedéet mbaar duñ ko bëgg a nuyool ak festival ba ñu def ca Venise wala ca Cannes wala Fespaco déedéet diine du ay caaxaan diine du ay caaxaan dajale ay góor ak jigéen ñuy di bége bége baat bu ñaaw la boo xam ne jotagut dañ ko yàkkamti balaa ñuy àgg ci béggee bokk yi dinañ jaar ci ay jaaruwaay yu yàgg faw ñu seet suñuy jataay jaxasoo góor ñaak jigéen ñoonu demee woon faw ñu xool fan la jigéen yëkkati kat kàddu te waru ko fa yëkkati fu ko fa góor xoolee te waru ko woon a xool nu mu fa fese te waru fa woon fes ba jàll examen yooyu door a bëgg kon euh, caaxaan yu ñu wodde mbubbum diine dong la ñi ko mën a saafara war nañ cee wax ndax amul solo amul solo yi bu yàggee mu mat solo benn borom xam-xam dana misaal ne kuy dem ci xew waajal la ñam yu bari ñam wu nekk ñu ne la wii moo gën a woyof tax nga mos ca léegi tey mu di ci yow diine nag bu fekkoonte ne am na fi ndey wala baay wala jarbaat wala bàjjan wala nijaay faw des na ko jugal bokk yi weeru koor ni mu toll xeetalu nit ñi ñu ngi dem defi salatu tahajjud qiyamul layl woote wuñ ay tarawiix waaye lañu woote mooy kaay leen ñu jàng xasiday mag ñi ak ñoo mën a tooñ mag ñi ci ña fay yëngu nis tuuti nga tàmbalee na gisat feneen ci yeneen i xew xew yoo xam ne xewi caaxaan dong la maa jaala allahu li rajul min xalabayni fi jawfi nit munta gëm ñaari yëf munta gëm ay caaxaan di gëmaatu dëgg képp koo xam ne soo demee ba ci aw cël mooy fi yaari yoon daje faw nga tànn ci benn inna hadaynaahu sabila imma shakiran wa imma kafura waaye kenn nit ku maase di jaar ci yaari yoon yu bokkut fi ñu jëm xam waaye am xel sax nanguwu ko nañ bàyyi diine ji ñuy caaxaane rawatina weer lu toll ne weeru koor nga xam ne jàmbar yi dëgg nii ñuy def ci bëccëg bi ne ngëmm ngëmmëral luñ naan ak moytu ya ñuy moytu bu guddi jotee noonu lañ koy dundale duñ ne xëpp bët ñu ci bare bari bëccëg la dajaxu ni di waaye duñ nelaw guddi gi ndax bañ dara raw leen te li ci gën a yéeme xasida yi Sëriñ Tuubaa yañ fay ay munaajaat da caa bari yoo xam ne yàlla ak sëriñ bi ñoo koy sëriñ beeg yàlla la koy waxal kenn fekk ñu ne ko tànjang ku jigéen koo xam ne bu jigéen jugee foofee mën naa dem ca feneen waxi fa yeneen ñu jox ko ko mu ne mu wane ma jigéen daawul jàkkaarloog aw aw góor di leen xool boo ma sañoon ni gone ku jigéen bu njëkk su jubee penc mi seen góor ña day tegg wala mu wàññi ko jaare ca wan wax waaye dañ koy jox waxukaay mu ne daj jàkkaarloog ñoom ne xujj xujjóoral du xef du rof di wax wax mag te tooñ moom du gàllaaj loolu war naa dakk festival silaam war naa dakk juumuma ci nag silaam am na ci naar baatub silaam am na ci naar moom xam nañ li tekk nañ ko laaj diine laajut festival laajut congrès su ko laajee la muy soxla mooy kan mu ëpp lu mokkal ci alxuraan kan moo ëpp lu kan moo gën a maîtriser moo gën a mokkal ponk yi kan moo gën a xootal xam am ci àtta yi kan moo gën a xootal ci xam-xam yi nga xam ne diine xam na ko nangu na ko muy xam-xam wala bokk su fekkee dañ ciy jiblu aar lislaam xam na aar mbind mbindum kaamil mbind moo xam ne day am ay defin yi ñu cay def ay jalgati waxuma jalgati yi ñuy wax nag mooy jiim ngi nekk fii miim ngi nekk fii nun gi nekk fii nga liggéey ko ba mel ne dara la te fekk mi ayab alxuraan waaye bokk yi diine xamna na bind ak kaamil ak nga xonkal yaa ci wara xonkal mokal xonqal ci wara mokal wertal yaa ci wara wertal def ci yeb rëdd ko defal ko jafura lutax tax Sénégal loolu boo ko gucci tam na gàññ gàññaaral fi ñu ko man nefi dañuy waxaat ña leen neex ñu ne ñoo fa teewal Sëñ touba teewal ñu fa Sëñ touba ñoo fa teewal sidil El malik dedet mosuñoo wàlli ay caaxaan ñu koo fekke ku ko doon def ci seen kanam sax duñu xam lu mu doon malik waxoon ñu ne ko fecc ndax dagan nam déet mu ne lu mu doon ñu xoolante ñu ne ko lu ñuy def la mu ne nañ indi ña koy def ma gis ko bañ feccee ba àggal daf ne lii atteem mooy dof la yëfi dof la loolu ba léegi neex naa xam kuy xool télé bi gis kuy fecc bàyyi ko mu cëpp cëppi ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما ما ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما خلقناهما إلا بالحق وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون nañu yeesalaat pas-pas te bàyyi pome te bañ tënk nit ñi lu nekk ñu wan leen cag jaamu yàlla te fekk yàlla yoonu yàlla nekku ca yàlla yemalewut jaamu yàlla ci weeru koor kese ñu dellu ko fàttali dëgg la joxañ na ko ne moom moo ko moom te mooy koy fayal boppam asiyaamu lii waa ana ajzi lu yàlla ne maa ko moom tekki wut ne daa am yeneen yoo xam ne moomu ko moomam lépp la loolooy tekk rek maa ko moom ja la muy tekk mooy loola nu mu kawee nu ko fonke kon bokk yi jeexit yi ab jullit di jële ci koor daa war a feeñ ak jullit yi daa war a feeñ waxtu wu nekk du doon bu weeru koor wi jotee mu ne nëmm du yëngu dorof bu weeru ko jàllee mu ne fojjat dellu ci lam nekkoon modd korite sax am na modd korite nga xam ne guddi yi ñu toll nga xam ne bañu nelaw guddi la modd korite dañ koy wane ci ay télé yenn yi naan bu kore gaay nii lañu war a soloo ak diw sangam moo ñaw lii am na ci ñoo xam ne boo leen xoolee dangay bëgg a jooy da nga ñi ñoo rafle xanaa kii ñaw lii du ab jullit waaye modd korité ak défilé spécial korité ñii ñoo wuuteeg sëñ bu mag bi ni mu doon ak korité sëñ bu mag bi def fan yu mujj ci korité loo ko was a wax mu ne tëluma ko de ndax gan gi may tàggu mel ni ku jàq mel ni ku jàq mel ni ku tiit boo ko bëgg a ci jox ma jox mu ne demal jël la la soob ma nga ne soxla wu ma ko waaye dañuy fàttaloo nit ñi koor gi ay défilé ay modd ay théâtre yi loolu nag am na ñu ne ci seen loxo ñoo xam ne ñoo ko war a dindi ñoo ca war a wax bu dee télé yi dañ koy jaay dong nañ jënd jël alal ji jënd waxtu yi télévision yépp di ca wax nit ñi lañu war a def waaye ceetaan ni su yàggee si ndax bi wolof yi daan lébb yàgg moo leen di dal ba ponkal yooyu xeex ca wana mu ne sama yoon nekku ci mu ne maam meer loo xam ci ñuy xeex meer bi ne ko sama yoon nekku ci ndax ñaari nag lañ loo xam ci xar yi xeex mu ne sama yoon nekku ñaari xar lañ sa ndax bi wadd na dëwu ci taal bi genn gilint wadd gilint mooy matt guy tàkk fayut waaye xal yaa nga ca maire bi maire bi wala góor gi nelaw ci biir néeg bi gilinte gi dal ci kaw sàkket bi dama ko tënk waaye ñam ko waxoon bari nañu néeg bi daana ci kawam mu xanaa musiba baa ngi dolliwu ñu ne nañ ko waxi nañ ko wax waa koñ bi waa koñ bi ne kër kër na këpp ñu ne ñu mënu si la ñàkk toggal añ kat aw bëy ñu xool ne bëy doyut ñu defar am xar gannaaw bi ñu xool ne nag nagay doy waa dëkk sàngal war ko ñu war fas di ko ko fas daw ba jukkandi faam musiba mook eau de javel ci mbub mu am couleur ñoo buy soo ko dal doo ko gis waaye su doxee tuuti da nga xam am lu dal mbub mi dana def bën bën wala mu def moo tax génn wax jot yàlla na yàlla musal ci ñi waral morom su merom suñu borom kon yàlla nañ ko fekkee déwén te saa su nekk suñu borom dox suñu diggante ak seytaane euh, ñi nga xam ne fa moo nekk seen bopp Eh, te fas yéene bu koor gi jeex ñu dellu wàcca nañ xam luñ gudd gudd fan duñ fi am ñaar téeméeri at te lum gàtt gàtt danañ am ci bàmmeel juróomi téeméeri at lum gàtt gàtt te kenn ku ci nekk dee mën na koo fekk famille foyee nit ñaa faatu di daan ci stade yi fekk ay footballkat la yoon ñenn ñi ci ko chaîne bi dem bay tambalé way ñu di len tàccu dig ba aksi ñu ne fat daanu am ño xamne dañ doon sujoot dal nam xel de am ño xamne fañu fa ñu ci seen biir néeg ci jàmm fal leen fekk kon fépp lay fekk nit aynama takunu yudrikkumul mawt walaw kuntum fi buru nañ teggi seen tànk euh, am na kersa gu dal ay bokk ab néew dana ko toj ay bokkam koo xam ne day fo ba faatu ca poma ñu sàng ko mbalaat mu def ca kaaba ga def ci alxuraan alxuraan nañ koy rëbb ndax jotewul ak moom dara ñu woo kuy seere nañ ku doon def lu baax la te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla nee kenn ku ci nekk lam faatu ca la ko yàlla tàmbalee àtte nam ba muy faatu lam doon def ca la ko yàlla tàmbalee àtte di xool ay kayitam <clears throat> sëñ bu mag bi wax nañ ne ginnaaw dogalub suñu borom bi ci la jaar na ci li waral mu wokk loxoy mbubbam wokk loxoy mbubb nag te fas yéene añ wala mu fas yéene reer wala mu fas yéene ndogu faw nga dem ñu téye kay daa romb ci ab dëkk daa jëm daa jubub dëkk dëkk bu ñu xam ba ne yunn ci penc ma séen ñee di yoote ñee di dam yi xale yu jigéen yee nguukaan gone yu góor di xaam ñépp dal na ci caaxaan muy tegg dëkk ba fas bu dut jaaj suuf sa jaar ca gënaaw kër ga dégg fa loo xam ne moo ko taxaw ak loxoñ boppam ne lii moom dana dakk sama kem kattan yi fekk maa ngi dund daa romb ca gënaaw kër ga dégg jigéen ñay laajante ñaari jigéen ñaari jeeg kenn ke ne diw looy def ni mu ne ko damay yew sama bëyi wa wal damay bëy sama damay yew sama bëyi walaay mu ne ko man de sama bëyi amatuma ci yaakaar mu ne ko man daal dama leen a am na ci wow moom ñibbi si wut xam naa dee na ca réer ga sëriñ bi àgg suuf na dee ba réer ba dee ca réer ga réer ba dee ca gannaaw jur lay dal jur mi nga xam ne ci yi nit la nekk fam koy fanaan la bala ngaa caa dem jaar ci biir néegam te bu la yëg mu génn génn wanag wa dugg ci biir néegam génn ci ëtt bi génn kër génn dëkk ba réer ko mu wër wër gisu ko ba mu wër ko ne dundatul taraw mi nga xane kenn du ko jaw kenn du ko takk nit ñi mat nañu jóg kon bok yalla ñu yalla musal ci reer waye ku yeew deug baat bi wax du dajal alal ju bari de du ko am ay immeuble yu bari de ak bien dedet ndax lu bari bari bis buñ né faatu na ñak na waaye ki yeewu dafa xam li tax ñu indi ko fi jaamu yàlla mu futti ko wook tànki tànki tuwéyam ak loxo yi mbubbam fas yéene moom bu ëllëgee du des gannaaw bu nekku ca bopp ba it du ne sa gannaaw ndax kanam mën a xam ci lay jeexale ba tere daan am da nga gis ñu sëf lu bare bare bare dikk ñu peese ba noppi ne ko nangam nga am mu matt loxoom ne sama kër kër jëpp defoo naa ne maay daan diw rob soccoom naan def maay daan diw maay daan diw peese ko xamagut lu muy am diggante boobu bisu yomal xiyaamaa ko raw am na ñuy mat seen loxo am na ñuy def ci seen poos ndax bëgguñ ko leen catu ñoo daan diw daan diw daan diw lañ koy waxtaane nag ah na gën sama réer daaw ja moom kooku ku ne xam ne santud yàlla waaye teewut dox na jéego yu am solo fexe na ba daan diw daan diw waaye koo xam ne dañ koo xool mu jéeloo woon ni di raadu waaye tayal ñaari gopp lay def jël naaj wi tàng mu dem toog ci ker naan am ndoxam wàññiku gàddu goppam dugub ji sëkk gerte ga sëkk ku ne xam naa mënta daan kaan coonof kese yàlla nañu ci yàlla nañu yàlla musal ci am po ak ab pokat ak lépp lu ko niru am na sax bat bu xorom boo xam ne ree day jàpp nit ñi mélodie divine musique boo xam ne yàllaa tax musique bu yàlla tax ah nañ nekk ba àllaaxira ba xam yàlla xam na ko ba di ko atteindre yàlla xam na lépp de waaye lépp da ko codé dana lii lay atte ak lii ku jaar ci fii ñu atte ko fii ku jaar ci fee ñu atte ko fee bu ñuy atte fekk ñu yam képp ci li Seydina Muhammad jàngale woon azaka yi muurum koor it toll nañ waxtoom bu ñu woree it yonent bi sallallahu alayhi wa nee na bu ñu waree ba noppi ku ca teg juróom-benn ko ma dana mel ni woor na at mi yépp moom la wala fi daan wax gunge yàlla na ko yàlla déggloo te nanguloo na ko ku dem nag ca koñ ba mu dëkk mën naa dem ci borom xam-xam ne ko asaka yu murum koor nu muy demee lu ci ama am solo la sunnatun waajiba la kon ni ñu koy génneel daal mooy képp koo xam ne sa soxna la sa doom la kuñ la jox la ab atem na ci say loxo ba ci sax ñii liggéey ci kër yi ñu di leen fay ñu ko jox daa bàyyi àtte ba ci suñu loxo mu dundee suñu kër na muy tolloog dañ koy jox nag mënees naa dem ci boroom xam-xam bañ dendal mu leeral ko ba mu leer nañ waaye lu ama am solo la ci koor gi ndax sunna yam ca daa foor lool ci ab jullit bu ko dégg te xam ko waaye sunnatun waajiba rawatina ca yàlla na nu yàlla may nu fekk wat déwén te mu ànd ak wu tal ak man suñu bokk yi nga xam ne dañu fee nekkoon woon ak noonu daaw ak fu ñu mën a nekk di julit dañ fekke wuñ ko ne noonu yàlla na leen yàlla yërëm ñun ñi fi nekkit yàlla nañu yàlla may na fekk ko déwén te liñ ci def mu néew mu bari yàlla buñ ñu ko buñ ko gis te yàlla ne ko yàlla gis te dencal ñu ko fu yàq yëggut dellu di balu xaq julit yëpp tey bal xaq julit yëpp يغفرنا ولكم ولسائر المسلمين آمين